lu leen kër yi bu kenn kaaroo xol yi bëgg nga dégg dëgg. dëgg rek laa bëgg a dégg. kii son état est très critique gëm naa ne toog sax dootu ko mën a defati. sa kayitu kër la delloo naa sa tur. man li ma liggéey rek la ma yàlla fay nga gëm ko wala nga ñàkk ko gëm man changé naa say dootul dox suñu diggante man ak yow. waaw man kan ngay fan nga nekk. sama copine bi Amina rek këram laa nekk en attendant. en attendant lan. dañ may tàkk. kan moo takk. kan moo takk laa bëgg nga wax ma ko kan la. Mă borog pe telbi, chimăm pe telbi. Pap! moom mooy tàkk. boo amee njëkkeelu dara saful da ngay moytu ndax man ay géwél ñëw fi ma xass la yak la kete mais defuma ko muy dara ndax dara préje ñeenteew ma man. Non aw ma pour wax kenn ko xamné amul ak ko xamné ne da ko tawul waye nak euh, gis nga sa sëy bi ngay wax sa diggante yi ak pap dama bëgg nga jël ko tek ko ci suuf loolu rek moy mëna am faaw ma sey ak pap mo gëna a dal sama xel babu xaramu lan gis nga ki man mako dugulon ci kër gi waye dootuma ko bayati muy dugat fi Ay. bii bi woon wàññi na de man léegi dama changé. gëw loolu. parce que boo changé woon. te doo ko bàyyi muy dugg ci kër gi depuis deux heures de temps te daa koo ko ci biti. gis na kii dama koy yeeru xool ko si bët mais kër gi du fi dugaat. léegi bu fi dugaatee nay def. looyut moom seen ndékki mu ngi neex ba léegi te riche xamal naa leen ko kii bu naree dugg ci waat ci kër gi damay buub samay bagage dellu sama kër pap ndax kii kum posé na lay wër ndax xam naa ko dafa capable. madame Guèye ngay waajaam fii de hmm, te monsieur Guèye lekk maar nii sagar loo pour yéen seen kër gi loo wéen doy na sëkk bàyyi ma ma dem seeti waa Guèye na lañ may teeroo. Mm-hmm. maar mbaa doo bàyyi soxna Bato mu dal kër gi. su ma koy bàyyi ak su ma ko dul bàyyi lan moo ci sa kër gi sama kër la man maa fii dogal. kër gi sa kër la waaye ñun say jabar lañ décision boo jël dañ cee war a waxtaan ak ñun. ku ma fiy dugal ak ku ma fiy génne di yow yaa koy lijjanti. d'accord lenn daal dinaa la ko wax soxna Batoor bu ne lay dellu si kër gi man dinaa jël samay bagage ma dem sama yoon. boo demee ci soxna Batoor ne ko baal naa ko wax. te dina ko ñaanal hmm. waaye nag nga tegal ma ci lii ne ko suy ñaan nit buy ñaan ci àdduna hmm. day ñaan yàlla boole ko ak ay nit yu baax te nit ku baax du jaay ba doon jaay sax moom amul njëgam la xewoon moom dootu fi xew ma yow laa wax xaw ma ci dara té sax nak loolu wax ci fii ki ay fan yu néew batoor dañ koy maye mu dem sey voilà alhamdulilah rabbil alamin comme que loolu am na moom waroon naa xam ki ko takk moom ma dolli ko si war war loolu koy sant yàlla bu baax alhamdulilahi rabbil alamin <laughs> lu koy mbégte la moom li ma dal bu la daloon li ngay wax ni yëpp doo ko wax Mari ulan lan moo la dal xana bëgg gis jigen bëgg ko loolu moy sama febar et j'espère bien que ne kan du del wat ci kër gi léegi bu ci wat ci kër gi yow def man ngay laaj lu may def man mi soxna ba tër bëgg ray bëgg ray sama doom buy dugg si may genn man maa dul bokk kër ak soxna batoor mu may ray di ray sama doom yow nag mën nga tooñ kan moo la wax soxna Batoor maar moo koy takk. yow kan moo la wax maar takku ko. yow yaa neex bu maar doon takk soxna Batoor ñun duñ ko yëg maa ci boppam moom moo wax ne takkul soxna Batoor. maar takkul soxna Batoor kon léegi soxna Batoor kan moo koy takk. ko takk gi takk gi. sama dyan? sa papa na. Kan, ah? Wala nga, dof kan, Sa ah? sama papa muna tak jabar te kenn du ko yek si kër gi mais ya, man nakala muna tak a na ya, soxna ba yin yéen ko yek. Nakala ya. muna defen a man Ma, yow nga ne tako ki yaw. Me tako mako? bu ko tako akala du ko yek. waa yow li nga ko man lu Lo lan lala. Nyun ngay trahir dem sa yek kenen. nga pa, bien sûr moma tak takk teral ma. Yena xam wor workat bi nga don yow fi la ma jëlee ak fi mu la indi. tay rek la tonkon sey sa sey bi mo la gënal. waye wëri sa mama nak boko tamé do na ngo sey da melni sage de universitaire. <laughs> morom kay bu mburu doole. sama pap ba do la ñuy sama badjin soxna ba tour motax mu febar ni sëy bi man laay def tas ko récupéré waat sama jabar. allah kër gi wàcc na ba zéro soxna bu tóor am na jëkkër. maar moom dafa sax far feebar. dof boobu moom xanaa bu muy dugg si soxna bu tóor deful enquête. takk na ko. sëy singa kerki, ci kër gi amoon ndaw ma sutural mu dem lim dem ñeel safar andil la sa silib ma sutural nga genn dem ci biti ma yaakaar ni may xaar nga dem nek ak mom est-ce que est-ce que yeen ñaar mëss ngeen tàqali su guddé di nga comprendre bu baax lan lay comprendre man kay lima bëgg moy ci kaw boko mané est-ce que est-ce que mën ngaa tas ma takk la. lan. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf am ngeen jaarama dal leen ak jàmm teg si leen dal leen ak jàmm dal leen ak jàmm jërëjëf kon de def naa mbir yi ñëw na waaye ah waaw. soxna yi du fii juumuñu rek juumuñu fii la ñu jëm juumuñu ma ni déglu leen déglu leen déglu bu len ñu fonto lañ la wax ay kilifa duñu taxaw ne leen da ngeen a juum ngeen ne juumu leen loolu moom mooy lan benn set lañ fi amul te mu ngi bu len ñu fonto tax du ko wax ñoo ngi nii. dëgg neexul bu leen ñu fonto ah. et puis kii sax mooy kan kii fan la jógee. ay jaay la kii fan saarum nit la kii soxna Badoo. nit nga. reglel nit nga yow soxna Boto rey sunu yaay yow keroog bi mu fi ñëw dañ laa gàddu mel ni ku yor néew tey moom du fi fanaan. eh xam nga lu lay xamal gi nga soxla Boto changé na te man xam naa ci dara. da ngay fen kan mooy fen. xamoo si dara naa fekk nga. yow nag Mario ku feebal nga yow. yow ku ma bett nga. pour ma waxaat baat boobu. ma yow yaay sëy wala man maay sëy sëy bi sama sëy la nag te bëgguma ci benn problème alima mu ngi ne ma teg foofu lañ ko teg kenn duggagul ci biir néeg kenn jëlagul benn décision. te maa ngi am chance ba léegi nag. man ba ma juddoo sama ndey sama baay ba tey musuma gis indi seet dalal la guñ la sax beneen seet ñoo topp suñu kaw luy loolu. man de wax dëgg yàlla xaw ma ci dara. xam bëgg dangaa bëgg mu yegg si nga ma xaw ma ci dara loolu kay mooy xam naa ci dara dangaa bëgg mu toog ndax soo ko bëggutoon danga naan ma déedéet.

waneel sa bopp au moins sax nga mer ba maa xam ne mer nga. dama ñëwoon pour nga baal ma àq li fi xewoon fàttewu ma ci dara te it weddiwu ci dara. te mu bëgg rek ñu jàmmoo raku jàmbur man nak soxna Bator di nga gis ci ma beneen xar kanam bu wutek bi won demb. Bal ma akara ko jambur. jàmm rek moo ñu indi de jàmm rek la ñu doxale. lan nga def sama buntu heure bi. fii lay fanaan. gis nga boo buggee foo fanaan nga dem sa ñaari séet yi nga fanaan fa. ubbil ma buntu bi damay dugg. Eh, bidanti bidanti barata julli fajar ma ngi djegalu de waa gisuloo soxna bàjjet yal nga ma beug na nga bëggee woon mareetu ci bax yal na raw maretu ci bax bu mar ko tat ci man Thank you. yow maar fan nga fanaan démb. néegu soxna Batoor laa fanaan. yow maar man ma sëy si démb waaye aya tey nga war a ci man nga ma fi dem di fanaan ci néegu soxna Nanti nga teg ko fan. su ci sama loxo bii ñoom ñëpp may abal kër gi. kenn laa la wax kenn sax du fi des. man damay génn kër gi abal leen ndax soxna Batoor du ma fekkante ak moom fii si kër gi. ma ak mi. différence torop yéen ñëpp bu changé woon du complot ak sama xaritu papa ji bu duggaat biir kër gi kon leer na la ne complot la Simon yeewu naa te dootuma nelawati. dama ne nga ne xool boo gis am na ku koy yëngal. nga ne ah. sawi leen tëtëti. soxna Batool nga fekk sa biir néeg muy fuyee say bagages léegi loolu pour lan la. man ngay laaj pour lan la su ma ko xamoon du ma la woo te danga ne problème bu am nañ la woo yaa kilifa kër gi dama bëgg nga régler ko man duma mariyeetu démb nag benn xaritam xëpp na ma ndox waxuma dara bëgguma problème de sama néeg sama néeg la bu fi kenn dugg te entré wu ma la. man ñi bëgguñu la man maa leen di jéem a forcer sama bopp mais ñoom bëgguñu ma maa lu nekk maa koy def. xam naa duñ ma mës a bëgg duñ ma mës a bañ. soxna. maa dafa ànd fanta di doxantu ji. maa dafa ànd ak kan dem doxantu ji. maa dafa fàtte man maa aye tey muy ànd ak fanta dem doxantu ji ci suba ba léegi gisuma maa dégguma ko xaw ma ci lu mu nekk sama ay lay àndee fanta sey dem doxantu ji. suñu bët yi tase ba léegi ànduma ak sama saago sama mbëggeel noonu la yaatoo du reste fii j'ai ni xale buñ wax mu soufflé gâteau eh. bu ku nekk di maandu ci ayu jàmbur jàmm mën naa am ci kër ñun jigéen yi rek ñun ñoy togg ñun jabar yi sax lay wax. ñun jabar yi buñ toggul kuy togg. yaakar ngeen ma fompal benn jeeg gis nga sama loxo yi dafa allergie eau de javel fompalu ma benn jeeg. dossier ma ca ndam yeen tamit nak yeen yeen ay bour ngeen. waroo leen fompu yow lu tax nga seytaane yow. eh wa ah. koy waxal man lu nga seytaane yow yow man ngay wax dama seytaane yow lay waxal da nga seytaane morom boran dafa da la war ndax balé la wacc fobéré wacc la poussière wacc la parce que donc ko mënul parce que biñ lay jangal togu jangal la liggéey ko donc ko ya ngi wër rek tax suma yow man duma yow balé ko fobéré wacc tak ma fanta man duma yow eh eh ye doy na dépense pas bi dama marche Allah ñaata yon la lay wax man toguma dama ëmb xam nga lan la bul ma fontoo comme mun nga waaye feebaroo di togg nag bàyyi ma ñibbi say kër baay lan nga jot ak sa jëkkër àlla nee na su ma mënula togg naa génn seen kër waa lan moo la teree togg yow dama tolu digënté pap dama ëmb ëmb bu ndaw ma ngi dem jakk ja way bu ma dellu bu ma la fekk lu sa papa wax ya sam papa nee na bu ma fekkaat man yaay man ñibbiwuma foofu de ma nekk foofu di toog ak a ba yaakaar sama doom man yaay man yaay kodd li nga doon waxtaan ak man sànq laa bëgg nga wax ko àll mii ba mu xam ko. su ma sëy bu njëkk dama faa avorté ñaari yoon yàlla boole ma yow ma ëmbaat avorté moo tax sama ëmb bi. bi ma ko yàlla joxaatee ma xar ci sama tànk tubay te àll dama bëgg doom biri bi may dégg nii lan la. lay diril ci waaye yàq na ko. loog fi ma yaakaaru ne dégg ni kenn warul dugg ci néegu jàmbur te kenn invité wu la. Amina mooy sama xarit bi xam nga ko bu baax Amina. waaw moo organisé benn fête këram ma bëggoon nga ñëw ñu ànd. léegi léegi laa yegg si kaw dégg naa soxna Batoor muy wax sa papa dafa bëgg mu fekk ko ci benn fête bu Amina di organisé tey ci 31 décembre dafa bëgg sàcc ay maar moom bu fa demee ñun dootuñ ko gisati. préparé wu. طيب dem lo un passeport oh. mm-hmm. xamna li ma la wax allo wa ge xolal waxal ma fantasy di mën na préparer wu deng ok d'accord animar ma ara moko na mu ci won bi lay maxi boko kon hmm. copine mar est ce que dina ñew yow la santaman ji dégguma de dafa am ku may xaar man xam naa looy xaar lan laa xaar ci ñam soxla ba nga bëgg a dem te moom moo ne naa la jël si moom ak ay xaritam dañ la fekk kër ga kan moo la wax loolu xanaa moom si boppam moom moo ne naa ñëw jël si lu dem kër ga moom ak ay xaritam dañ la fa fekk waaw soxna Batoor boo xamee loolu lan moo tax moom mënu ma woo téléphone wax ma lim may wax. loolu lan yow yow yaa gën a xam ne maar mën na nopp maar rek man mii la bëgg. waaw ah, loolu moom leer na. te du mas a def loolu dinaa la wax daal nag ci maar. waaw gis nga maar dafa fonk kàddoom. <laughs> Ah, yéen a ko yéen a ko dugal nii. ma dama bëggoon nga am si téléphone dama bëgg woon sax na batoo feneen aw crédit danga naa téléphone papa bàyyi nii léegi man lan laay def léegi da ngay composé numéro sama bàjjen soxna hmm. nga woo ko boo ko ba mu décroché ba ne la allo nga raccroché ko boo ko raccroché nga dugal ko liste rouge boo paree nga delloo sama papa téléphone bi nga ne ko woo nga ko ba sonn jotoo ko. d'accord léegi léegi nii laa koy def. léegi kañ def ko léegi. lu mu wax. xam naa réseau bi la. réseau bi day daw fii. sûrement moom la nekk. da ngay insister. waaw tam moo war ko. waaye yow xanaa maar na lu ñu. Marlo nobatu la de Marlo mom, nobatu la te ko pin ñoo xante deug gis nga sey bi yow ya, ya forcer sa bop dug mais maar moom pare na ci yow. li ma jaaxal mooy jigéen buy sey lan la wara def ci mbedd mi ba heure bi te nga xamni ne xel yow dekk bi wóoratul soxna batoor limi def ci mbedd mi ba heure bi man loolu sama problème loolu rek ma jaxal awa ci loolu فابيا فهم في الدم وريش كلمني لي على العرب لما يخمت ما يعني من في حمر دمريو ايه تخون Malin, awak jalan dengan pakai jalan jalan. Jalan, you boleh. Wah, you boleh. You boleh, you boleh, you boleh, you boleh, you boleh. You boleh, boleh pakai. You boleh. fo joge jógee la def ni dañ ma agresser sama wan faa xamoon. kanaan soxna Bato may wax mona day dugg ci nekk pour wax yow. Eh, yow fo jog damay dem wax ak mom wo yow fenn nga demul. tay ma momé ci ay loxo nga nek te man dama mayewul de ma nga teud mar la demal seti maar mi tëdd bu yàgg soxna bu subaa lii il faut ñu wax si. Mareetu boo amee koy waxal demal nga wax ak Alima ak Fanta Seydi man bul wax ak man dara ñaar ñoo ngi ñoo ma kompaloo. te suñu dir bi bis bu claté dinañ am problème. dara du claté gis yéen fi ngeen jàpp mu dëgër bu waxee ngeen ko moom mooy fenn kenn du ko gëm dafa tàmm fen et puis yow sama téléphone papa nga ko woowee loolu rek doy na preuve. nag dama bëgg lépp leer wala yéen ñaar ngeen abal ma ci biti tey dafa war a leer. yow laay déglu fantasy. lii numéro soxna Batoor la wala du numéro. kon gis nga ne woo naa ko kii bu waxee woowu ko waxul dëgg kon da nga bëggoon sàcc ay man duma ma buy sàcc ay sama jëkkër daf ma nopp loolu mi xool xam ne sàcckatu ay nga hmm. te yow da nga foo soxna bu toog tàmbali war na feneen yi soxna bu toog ñaata fan la def ci kër gi tàmbali war def fen mais kii lan ñoo ko dal te bés ni ki tey dootuñu may dara xaw ma yéen mais man duma ko may dara sama yaay nag xam naa ko du defante ak lu ti xew du defante mais la meilleure façon de se défendre c'est d'attaquer dama bëgg nga enregistré ma Fanta téléphone rek nga yor nekk sama ginnaaw di ko Mama xale bu bisa baturnak Soalnya Batoor nak poson lah. Kis nga buka bayi ul. dina indiwaat guerre ci kër gi seetlu woon ne dem sax ba am ay pusok te lépp indi. xam nga kama. laa sama yon ni ma ak ni mel ak lima don, motak nga dem ci maar nga ne ko man maa la pour te yëgu ma tinu ma xaw lu xew yow laay déglu Fanta doo wax moom waa sagar looy def nii <laughs> kon yéen man ngeen di jéem a piéger nii lan moo tax ba du ma leen enregistré ñoom ñooy fen gis nga fanta masuma ko yoni pour mu ñew jël ci la dé do nga bëgg wax ci lèr kenn fenul yow rek yaay fen yow rek yaay fena ah. et puis dama bëgg wax ji na jeex man dama sonn ci wax ji dama sonn ci wax ji dé bo jógee di fan di wax na nit ñi da nga changer alors que xaju bay changer yow kuy changer dina melni yow jege wo sax pour changer tuub na yom na tuub na do tu mu ko dolé ci mooy li am solo. Eh, Gayami nemo mata jaaxal. Aja godam. Fulkan dia suma kër. Xool ko kanam gu ñeme gi mel ni rond-point Colobane ñàkkul dara. Aja wi fulkan.

ko di waxtaan de nee na lii na ko dal ba muy nekk xale mais sëriñ bi nee na ko su màggee dina ko dalaat mais il faut que mu fanaanoo ak góor juróom-ñaari fan pour mu mën a dañ. xam naa sama yaay nangu ko. sa yaay de non nangu na ko. mais maar moom la yónni ci ñun pour mu waxtaan ak ñun te xam nga ni sa yaay dañ ko moom mu ne lan mooy feebaram noonu. xoolal ma wax yooyu xam nga ni loolu tegtal la léegi boo fanaanoo ak góor juróom-ñaari fan est-ce xam ngeen lan moo si topp. bii paa moom man maa koy réglé sama bopp. papa sama yaay nee na nga jóg ñu añandoo ensemble. Vayan con orang dong normal ¿ma? Bueno, fan a ngi tuddoo ma nii nga may rombee ci kër gi ñeenti fan lenn la xamul de mooy ko li woon woon bii paa moom du ko may fu mu tasee kër gi dama bëgg nga may ma une ma la wax moo xam man dama jaaxle rek dama bëgg tey ñëpp kontaan ci añ bi maa ngi dem marché mais su ma ñëwee dama bëgg nga wan ma loolu amul benn problème yow bo ñëwee wo mu ñu dugg ci waañ ma won la Ali moom li neex na di Mareetu mo mo doon won ah loolu kay lu rafet la waaw nek fi nekk ah. fii Alima añ leen koddu bismillah ma sha Allah dengan ngeen jàpp ni tant que soxna mi ngi ci kër gi jàmm du fi am. yaay mag du changé dafay nëbb jikkoom rek. léegi na ta rafet ka loo bëgg. nga takkal ma sama jëkkër xala waaye nag xala bi da koy dëpp. muy yéen kii lu muy wax nii. su ayee ci man. waaw te nga maa moytu fantax wala danga may jaay ne sa papa sëriñ la dinaa la am nag mystiquement moytu ma. man damaa faale sa mystique yow man lu jëntuwuma ko di. man nga jaayantil bànne yow man. yow dama laa lijjënt la. dafa mel ni waxu mystique laa fi dégg. moom nga dégg kay. ci suba. Fanta daf maa tëkku. ci kanamu maar nag. nee na Fanta Seydi da koo tëkku mystiquement te yow waxoo si dara moo daan tooñ nag warul tax suñ ko tooñee kenn du si wax dara. xaw ma lan lay pareeti. <laughs> bu ko deful ba pare. xaw ma lan la de mais dinaa ko découvrir vite fait. en tout cas man menacé wu ma ko dafa wax rek ma tontu ko. da la piège na la. moo ko menacé. gis nga su ko menacé wul woon Batoor du ko wax. yow ça va est-ce que fàtte kuy soxna Batoor yow xamoon ni soxna Batoor sos rek lay def. bii de sosu ko. juróom-ñaari fan heure boo ma tiimee rek dara. lan moo xew. Batoor xaw ma lan moo xew xaw ma. eh man jigéen laa. tax xale bu ndaw laa. mayaw ma de damay jaay Buma lalé sama darab bu wéx tal sama curai, ngallo sama ay fer dama bëgg mu fay de à chaque fois ni bakay man dal buma ayé ci suma yenen dama sama bop waye buma démé ci soxna dootuma santir dara dara dara dara dara. loolu. loo lan moo xew. Mariétou yëgatuma sama bopp. ngoone loo fa jële sagar wax na la waaw sagar wax na ma maarit expliqué na ma sagar loo li ma waxoon lépp dëgg la hmm. maarloo dañ koo takk xala turki jam eh. waxoon naa leen ko fanta la moom la moo ko def sagar hmm. bàyyil di sosal doomu aadama te amoolu si leer yow sagar lu tax nga réew man gis nga du ma sa morom dégg nga sa jabaru mag laa booy dugg sama néeg dama bëgg nga fëgg hmm. maa tay réew bi nga takk maarloo laa bëgg nga génne ko léegi léegi léegi ci ba muy gaaw. xam nga lu ci desam mooy nga jóg wutim paj jógal nga dem wuti am paj dafa am lu xew ci kër gi nag mais xam naa ne kenn du la ko wax man maa la koy wax sa papa dañ koo takk xala maa ngi waat ci barki alxuraan bi ne soxna Bator defuma ko maar defuma ko te lépp lu lëndëm ci biir mbir mi yàlla ko yàlla leeral lépp dina leer incha bool ci jaxatu bi xanaa tey kenn du weddi alima moo may tam dem seen kanam yéen ñëpp naan maa soxna lekkal jaxuta alima war na maa tam dem man war na maa waxuma dem laa Mariette man jógumoo sax pour tam ko fàtte naa sax li olof njaay naan demu di lek jaxatu man yoy gawmako yo xam nga loolu sax moo tam tamu ko sagar gis mo ko tam yow ki wax ñepp di dégg nga bëgg ko solal bu avocat waaye ma duma nek sa kër gi mukk nek sa kër gi di la muñal di nek say déet di bay sa ay téré di may tam dem ma duma nangu ko ma dem soo amee lu la métti du nii nga koy lijjanti da ngay dal bàyyi sa jooy yi. man man. wuy bu nekk nekk ci jàmm. jugal léegi nga dugg ci néegu batool nga baalu ci ko ak man loolu laa bëgg. waaye yow Marlo da fàtte wala. fii fàtte xaju fi soxna fii la bëgg a rey sama doom. tangal diwlin ma mu tang da def ma koy soti bu du woon yow tay ma ngi alakhirah heure bi te bobu est ce da nga insister pour mu ñew baluma ma nga tok fi naan ma demal nga balu soxna du mako balu ak tay du mako balu ak suba balu mako ta du mako def def. mo keur gi de nga toj xale jigen ay calendrier lañ def ku ne di da sa ka di fanaana. sunu boton ba na fan dañ koy togn àll bu la mbokk jaral mukk ngay faral soxna Batoor fii kan moo ko fi tam kenn tamu ko fi. gis nga li fi am bu fi amaatee ku ko fi mën a defati di nga jot sama jikko beneen bi mooy ngóone dama bëgg nga ànd ak Fanta nga dem ci néegu Fanta ngeen fuy foofu néeg bi yëpp. bu ngeen ci jógee ngeen dem néegu alima ngeen fuyee foofu yëpp toftal ca Mariétu ak soxna Bato. ah damay wax rek euh, alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi sant yàlla nag bu baax a baax a baax di demoon dikkat noonu waaw soxna Batoor moom moo dem ci benn sëriñ ba wax dëgg yàlla sëriñ bi faj na ko fi ne nii moom maa ngi sant yàlla bu baax a baax. sagar li yomb na de est-ce wóor na. foo xamee lool. mën na nekk. xam naa sa kanam gi bu baax. yow tuddoo Fanta. bien sûr noonu laa ko ah. loolu lay mën a am. yow ko yaram nit sama papa bu teg sa jëkkër xala. nga ni xala. man la màgget. jàll de sama papa nee na ñëpp toog ci salle bi xaar ko. eh màgget mi ci kaw maa ko fi indi sama jànq la te damay dem wax ak moom. sama papa nee na nañ toog ci saal bi xaar ko dama nga xaar sama papa Bigué xaaruma sa papa damay jàll. bàjjen bul insister fii doo fi jàll. lii pootum biir néeg la nañ ko waxtaanee rek. pootum biir néeg la waaye kii. faw man ak Bigué ñu ànd ak moom ba seen kër xam kan mooy papaam. bu ko defee lépp leer si kër gi lii dafa jaxasoo. dama bëgg xam ndax lii yow yaa ko def wala du yow. <laughs> yow bii war nga maa laaj lii dama yow man nga xam ne sama noonu sax du ma ko def waxuma laa koo xam ne man dama koo bëgg war nga taxaw tey di ma laaj lii yow yow xam nga ma lan laa sañ ak lu ma sañu. soxna Batoor moo takk jëkkëram xala dindi ko ba pare indi fi jànkam ne noonu dafa def ay manigansam pour takkal Fanta Seydi waaye lépp dina leer yow def nga rek. yow fan nga xamee kii. nee naa la ki agence bi moo ma ko jox. yow ban agence ban agence nga may wax yow ma yaakaaroon da nga ne sa benn xarit moom moo la boole ak moom. sama ban xarit sama ban xarit ak man kañ laa la wax loolu. wax yi du loolu yow li mu wax sànq ci ndékkikaay bi daf la ko waxoon. Anta yow foo jëm nii. Mariétou police laay dem. ñun suñu famille xamuñu police. kii. dama koy porte ji ndax setal sama der Maguette Diouf waaw may Maguette Diouf police police man lan laa def ba police dama seet am naa carnet da nga bëgg a xam waaw bëgg a tas yu jàmbur lañ lay toppee bu dee daa am loo laale ci mbir mi soxna teel koo wax bala mbir yi di ëpp loxo. soxna ba tóor moo teg dil bi du man de. kan mooy soxna ba tóor. soxna ba tóor mooy wujju Fanta Seydi. kii de wax dëgg yàlla xaw ma ko te musuma kaa gis. loolu lan la mën a nekkee. loolu moo am pap dem nañ ba kër sëñ Modou Kéemaan nee na xamul màgget musu ko gis lépp nag complot la.

sëñ bi kañ ngeen ko convoqué. léegi te du duma ko fi bàyyi.